طيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صادق الوعد الأمين سيدنا ومولانا محمد القائل ما من مؤمنان يلتقيان ويتصافحان إلا وغفر لهما ما قدما من ذنبهما وما أخرا ورضوان الله عن صاحب الختم والكتم أحمد بن محمد السالم التجاني وعلى جميع خلفائه وأهل حضرته رضوان الله عليهم أجمعين ولا سيما صاحب الكرامات الخالده والبصمات الراسخة سيدي ومولاي أبو عبد الله الخليفة الحاج محمد بن سيد الحاج عبد الله بن محمد الذي ضحى نفسه وكرس حياته في إحياء التراث الإسلامي منذ شاب حتى شاب ومنذ شاب حتى غاب وعلى جميع خلفائه وآل حضرته رضوان الله عليهم أجمعين بقي نيسان في الله sant باخ di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sëlmal ci ay sahabaam yi maam xalifa waxoon ne ñooy usudu xarbi naharan ruhbanu bardi layali waaye it di delloo njukkal ci maam xalifa delloo woon njukkal lu rëy la ba ñu ko laajee li nga am foo ko jëlee ndax ci tàkk Cheikh Sidi Ahmed Tidiane la ndax ci nangam la ndax ci nangam la mu ne laa taxul kayfa nitadaha bi madihil xatmi am bi xayri nasibi لا ولكن بفضل ربي تعالى وبشيخي أفوق كل النجيب وبإرث من والدي وبشيخي وملاذ عبد الإله نقيبي waaye di yeesal suñu taalibe ak di rokkal ci suñu mbootaay تيغناو بور يالا جي وخون نوا اي فلال كل اني امامهم في الاله وليس دعوة ولكن شكرا لمن الاله كو في بروم تاكوسان امام خليفه ياس رضي الله تعالى عنه واي دي زيارو باخا باخ خليفه ام بوتيت بي ني باي فلي تيلو ني نتن مولاي تيغي مولاي شيخ احمد الديجاني اك مولاي نراكم واي زيارو باخا باخ تام ده وتام ييغا خامني ньо في جوغي ني لغي te tabarakallahu ka ca jiitu ca ñoom di ca mag di porte parole kër ga di alxaaj Ahmed Aboubacar ak shaqiqam bi mu toogaloon fii mu di alxaaj Khalifa Niass di Mouhamadou Khalifa waaye jaar nag ziar bu baax a baax ñi ngi fi fekk ñëpp rawatina ñi nga xam ni ñoo organisé lii di tàkku sa imam Khalifa Niass radiyallahu taala anhu ji waaye ziar bu baax a baax sang yu baax yi nga xam ne. sunuy nawle lañ ñii di sunuy rakk ñii di sunuy doomi nijaay ñii di sunuy doomi bàjjen ñoom ñëpp ñu ziar leen wàcce leen seen wàccuwaay waaye rawatina tabarakallahu sunu mbokk al ustaad bi jamii al maratib muy alxaaji Seydina Aliou Ndiaye mi ñu fekk muy modéré ci modération moom solo bi leen waaye ndokkeel bu baax a baax itam daayira bi nga xam ne ñoo dippee seen bopp Kazu-l Umma tabaarakallaahu yàlla na tur wuy borom xam naa ni am basira sax a tax ñu tuddee seen bopp loolu ndax seen jëf ju rëy kii ñu loolu tegtale ne daayira bi moom tashkiluhu mën a la chèque waaye nag laa xarwa an yaxdul fataaxatu waalidihi la borom maqaama doon wax dafa am xam ni li mu nàmp rek lay taxam ci ku xam fi ñu bokk ci dëkk nga xam ne mooy dàq seen. ak sax sax bi mu nekk ci seen loolu la jaaxal ci ñoom fa tabarakallahu kon ndokkeel nañ leen ci tàkkusaan yi nga xam ni moom la yàlla boole may fa tabarakallahu di ci ndokkeel waa Tafsir ci góor ak jigéen mag ak ndaw dalee ko nag ci nga xam ni fa tabarakallahu mooy sunu bàjjanu bopp xajja lay sët yi Ababakrin mi nga xam ne moom leen yàlla sedd fa tabarakallahu ngeen di barkeeloo te moom bi tedd jooju ci leeri mag ñooñu suñu jaaree ci moom rek mooy ah, tabarakallahu ziar nañu waa dëkk bi yëpp xam naa dafa tolloog li wolof di wax li duuf ci nag bi yëpp xaju ci cin li te bu tuuti doyul lu bëri bu ñëwoon it doy xam naa li alquran doon wax ci doomu aadama mooy li ne laa yas'amul insaanu min du'aa'il xayr loolu mooy li nu dal waaye bu dul loolu fa tabaarakallaahu li fi sang baax yi yëkkati bu dee jëriñ doy na bu dul jëriñ sax na ëpp na ba loolu moo ñu yóbbu kàdduy tey yi du àgg ci dugg ci biir waxtaan bi ndax dañu waxoon xajaarama seen daf ñu waxoon ni nañu waxtaan ci góor googu nga xam ni léppam barke la léppam njëriñ la léppam yiw la waaye fa tabarakallahu ku gis ni programme bi déroulé ak li fi jote sotteeku defe naa ne man lam yashkur bil qalil la la yashkur bil kathir loolu arab yi wax pour lu sant lu néew lu bëri bu ñëwoon it doo ca gërëm damay wax ne ku ñëw ci dëkk ñu joxañ la aw nag na la sa nagu teraangaa ngi bu la loolu doyul bu ñu ko leen di woon ak béjjén yëpp di ko toggaale yow boo ko lekkee doo kon fa tabarakallahu li fi jot soteku ah, ci dekk bi tey jógee ko ci sangu yu baax yi nga xamne def nañu lu ñuy tuddee sujet def lu ñuy tuddee complément def lu ñuy tuddee développement def lu ñuy tuddee conclusion kon fa tabarakallah sama xaritin lolu doy nañu sekk ci nga xamne mom lañu la ñu fi jot a dégg rawatina yi nga xamne mom moom lañ ci njàmbaas ci sunu mbokk Alxaaji Omar Cissé ak ñi fi jot a jël kàddu yëpp fa tabarakallahu loolu doy na sëkk walis ñu li fi yëkkati benn kàddu bu jëm ci li nga xam ne moo doon suñu góor googu xam naa joxe waat rendez-vous rek incha allah ci beneen yoon ñu mën a tekkanti yi nga xam ne jotoon nañ ko bind ah, ci ah, waxtaanu xale yi mag góor gu tedd googu moo doon naa kàddu yi du sori ah, te du bari ndax Alhaji Ahmad a ngi nii wa tabarakallahu moom itam dina indi nuyoom indi ziaram te guddi na te sedd na te itam ñu bari ngi jëm fu sori. موتاخ بن لين ريتيني في داني واخ لي رك الى الامام لي نين ديف نونو رك لا دي مثل هذا فيعمل العاملون ديف لي نين دي كيف موم رك موي ام سولو كان مام خليفه في مو تولي لي مو سوخلا دو واخ جو باري ديف جو باري رك لا سوخلا تبارك الله لولو نا دفنا لي لو باري فينال نو سونو خليفه بي نين ديفال اوماج مي سيدي يوم الحاج ابراهيم قدس الله سره دفنا لي لامو ديف ca lew nañu seen bët yëpp gis nañu ko moom kay la waykat waxam rek ne bët yëpp gis nañ nga nee la bët bu xëy ne gisul day bët bu silma xam baa muy bët bu jokkeelu loolu mooy li xew ca liggéeyam Cheikh Hadj Ibrahima Khalifa ca liggéeyam bay na fàng te du na ko kon nag ñun ñëpp nañu takkaayu jéem a ci jëf yu yooyu jéem a fexe mu tasaaroo comme ni ngeen def nii sànq def ci këru maam Khalifa Niass radiyallahu taala anhu ngir witaaraan li nga xam ne moo doon ab liggéeyam loolu ñun ñu ngi ciy kontaan ñu ngi ciy bég waaye ñu ngi souhaité leen loolu mu yaatu ba tasaaroo takkusaan ji ñu gën ko yaatal ba mu def ci journée ndax bawal war naa am lu mel noonu su ko defee xam naa ne fédération nañ ci liggéey ñu jëlee takkusaan ji ci nii yóbbu ko ci journée xëy na takkusaan yi yaatu ci biir dëkk yi waaye nag ñu am journée boo xam ne dañ ñu ko yóbbu ci bi. su ko defee yóbbu ko ci stade bi ñi nga xam ne ñoo war a xam maam Khalifa yëpp à travers journée boobu ñu xam ko loolu mooy doon appel bu doon profité di ko lancé pour ci képp koo xam ne yaa ngi fii euh, ronu tant bi fa tabarakallahu di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp xam naa ne dafa guddi di waxaat euh, daje ñëpp di waxaat salaam alhamdulillahi rabbil alamin wa salaam